ëmma maa ngi lay nuyu di la balaax si koor gi. waa jàmbaar ñu ngi leen di balaax di leen balaax di balaax Sénégal bi balaax di ñaan ñu dugg ci koor gi bisimilah rahmaani rahiim gën ci ay gën koor gi ba nga nekk suñu mujjanteelu ko ay at yu bëree bëri bëri yàlla jégal suñuy bàkkaar may ñu gudd fan ak yéegi yaram macha allah. sa digganteeg docteur Macoumba Diouf laataa may ñëw ci tey li nga xam ne war a jataay bi. waaw suma digganteeg moom yàgg na. mu nekk loo xam ne wax dëgg yàlla cofeel bu dëggu mu nekk suma kilifa nekk suma conseil ci lu bari ba tax na li ñuy wax wàllu mbay bi su ma ci amee fit wala ma am sañ-sañ moom la ci wàllu xalaatam bu sell ak conseil te gis ñu si tànk ginnaaw tànk na bu lañ ci gis dam contentement bu baax a baax mu nekk nit bu dëggu nit bu bugg jàmbaar nit boo xam ne amul daray caaxaan boo ko dégg ci caaxaan suy wax boo ko dégg la nga xam ni nit bu déggu mooy wax waaw nit bu mën ni tam tamit en plus waaw xamante bu ñu xamante maam moom rëccu wu ma ko kon gis naa nit ku baax la te concerne xalaatam sell na hmm. mu mel ni kon mbéyum dër ni kon yow yaa ngi ci bu baax am nga tool maa ngi ci bu baax. dégg naa am nga tool. waa am naa. na fu wax ne am nga tool xam naa sax tool ba fañ ma wax ne fa nga am tool. waaw am naa ko maa ngi ci kaw. yaa ngi bay yaa ngi bay waaw maa ngi bay mais bugg naa mu gën a mu gën a mu yaatu. waaw te mu ma ciy jàppale bëgg naa mu gën a yaatu. bëgg naa nekk mu nekk ay ay maanaam ay hectares yu bëri. gis naa ni. njëriñ la ci ci jeunesse bi waxuma la mbëri sax mais njëriñ la ci jeunesse bi. sànq maa ngi koy wax ñun am nañ chance tukki ñëpp alal bitim réew ay baykat lañu ñu am ay jet privé am teraanga yor ay nekk multimilliardaire te bëri ma ci doomu Sénégal dem immigré bu ñu demee foofu dañuy bay. waaw te liñ ci gis seen bopp bay liggéey noobul la mbay am am bi day sell li nga dundee day sell ba pare tamit aussi. dafa nekk loo xam dafa baax ci sa ci yaram wàllu yër gi yaram yàlla may nañu suuf am nañ ndox am nañ naaj tey boo duggee fi di dem Touba war nga jógee fi di dem Casamance wala tukki da nga romb àll boo xam ne oto bi na daw deux heures temps doo bi da ngay xool fa sa bët yi yem côté yëpp àll lay doon war nañ ko mën a su amee bëri na ci xale yi jógee bi dugg ci gaal yi di dem wala ñu dem di immigré dootuñ dem dañuy toog. parce que xaalis a ngi ci ah mun nga ci gagné à 100 pour cent te tey boo amee tey ku mel ni docteur Macoumba nga xam ne maanaam lu ci da xelam xarañ na ci lool moom dafa jóg pour jàppale jeunesse bi président bi ñu ngi koy dégg lu mu lu mu lu mu lu mu génnee pour jeunesse bi projet boobu ñu ngi koy ñaan mu nekk tey projet boo xam tam aussi du nekk lu ñuy wax mais luy ñuy jëfu la li bët di tegu la. jeunesse bi liggéey lañ bëgg Sénégal jeunesse bi fi nekk bëgg nañ liggéey la ma la fi doon bëgg nañ liggéey mooy xoolal tey ni ñuy xaroo ni ñuy ni ñuy duggee ci géej xool nañu pour lan pour tere seen waajur xam nga tey nga nekk doom bu góor ci famille. yaakaar bu góor boo ko doonee sonn nga du dëgg yaakaar bi ci yow nga nekk borom jom nekk nekk dar am esprit fighting bëgg a tere say waajur bëgg a tere askan te góor bu nekk moo ko bëgg kon tey jeunesse bëgg nañ liggéey mais jeunesse bi tamit bu ñu fàtte ni mbay mi dara bu ko xaalis. au la wala kii non moom day baykat wala nag non bay liggéey noobul la ñëpp àll ci àdduna ay baykat lañ dara ëpp ko xaalis liggéey gënu ko jaar yoon dara ëpp ko wér-gu-yaram liggéey am na ci dëkk bi. mais nag le président bi jàppale ndaw yi tey docteur Macoumba soo xoolee taxawaayam xam ni pare na te mu ngi dem à 100 pour cent parce que ànd ak moom fu nekk lépp loo gis rek moom jeunesse bi rek ñooy ñu réew mi rek fu liggéeykat la mais am na ñoo xam ne lañ gën a jàppale parce que bu leen jàppalee rek jeunesse bi gis seen bopp am na ñoo xam bu leen jàppale jeunesse bi gis seen bopp te jeunesse bi mbay liggéey la mbay liggéey gënu ko nekk liggéey noonu. waaw nañ prépare ñëpp muy leader yi leader yi ak jeunesse bi ak population bi ñëpp nañu jug mu liggéey suñu réew beneen bi tam aussi mooy li ma bëgg a xam ne man maa ko seetlu mooy réew mi ku nekk sànni ku jël dara tuur ci mbedd bi dëkk bi ñu ñoo ko mën defar environnement bi mais bëgg naa ji bàyyi xel parce que des fois mu jëndee ak oto mu lekk mu génne benn bu sax sànni te boo demoon Europe tey tey tey tey suba doo ko def da koy bàyyi ci saa si kon tamit aussi nañ bàyyi xel ci dëkk bi am na loo xam ne lépp président mënu am na loo xam ne ñun ñoo ko ci war a mën jàppale. macha allah tamit aussi nañ ko defaraat parce que Sénégal réewu diine la réew mu am yar la réewu teggin mais dama commencé seetlu ni ñu commencé ñàkk lu nga xam ne nii non suñu valeur dëgg ñu ko commencé di ñàkk ci lu nit neex waax kii maanaam xale yi nu juddu yi ñëwaat nañ leen sóor. du dëgg man ba ma bëree Gris Bordeaux mu dóor ma toj suma rikaat ma yow gis Sénégal àdduna bi yëpp Sénégal yëpp taf seen jë ci laa xam ne man sumay kàddu dama ko war xoolaat sama wax dama ko war a xoolaat parce que mu ngi may xel kon tamit aussi loolu dafa nekk loo xam ni dem conseil la pour pour bàyyi xel ci ni ñuy jëfee parce que suñuy doom ëllëg ñoo ci nar am problème ñu defaraat jikko yi yéen a jàmm wér Sénégal yàlla fi jàmm yàgg yàlla yàlla may wér ak wér la. waaw yal na yàlla gën a tàppe xol yi Sénégal yàlla nekk ci réew yi gën a màgg ci réew yi mën nañ ko waaw parce que Sénégal yàlla may na ko xel mu xel mu baax waaw yàlla may na ko mu am jom xam nga yàlla may na yàlla daal defal nañu lu rëy ñun ñu yi kon nag moom vraiment ñi ngi ñaan yàlla mu bañ ci jóg waaw am ci lu may <laughs> waaye am na nag lu lu rëy rëy loo xam ne ñu ngi ci mais ñu ngi ñaan yàlla bu sot ak ah. waaw. li ma dégg rëy na di man. loo dégg noonu. ah li ma dégg ci sa côté kay rëy. loolu la. contrat bu bees. waaw ñu ngi ñu ngi proposé ay combat ñu ngi ko proposé combat mais nag bon xam naa du yàgg dara ñu ci dégg dara. Ah. waaw bu neex na nag. yàgg la. non non non doo bi loolu. mais daal combat li ci biir combat yi kenn la ci lak tafaatin bal ak ñeneen ñu ci bokk ñu ñu wëli mu sax combat la boo xam ne daal combat la boo xam ne daal su taxawee ah man jàpp naa ne dina bëri non dina ni combat moom bu taxay coow dina bëri waaw coow dina bëri combat neex lay doon dina bëri coow waaw dina bëri coow trop daal xam naa ni dañ koy neex ñëpp lay ah. neex ñëpp la euh, ama ci ñu tuddee booy ñaar ban ban gis-gis bi am neex combat bu hmm. gaay yaa xam dina ah. waaw di ñaanal suma rakk yàlla may Boy Niang yàlla na ko yàlla mooy dem bu rëy. xalaat nga mën na dara ci Balla. non amul ku munul na ni mbër yi champion la. mën na bëre macha allah am na ginnaaw yàgg na bëre combat mag. ah non combat yu ñu si xel ñaar de. amoo ci xel xel ma daal yàlla xam nga loolu. ana Pergas. <laughs> Pergas mi ngi fi sama père. sama xarit sama père wax dëgg yàlla <laughs> sama père sama xarit. Ah. waaw. am maa ngi koy nuyu baax a baax. ok yi.